sortie il y a quelques jours de l'ancien euh, ministre de la justice euh, Ismaïla Madior Fall wax ci benn dossier bu sensible boo xam ne vraiment sénégalais yu bëri bëggoon nañ ci ay leeral euh, muy disparition ak décès Fulbert Sambou ak Didier Badji li mu ci wax indi benn mbir mu xaw a doy waar moom mu ñëwaat rattrapé wu ne dafa juum làmmiñam xëy na moo wax lu mu woon a wax naka nga ko gisee da ngay jàpp li mu wax wala lu génn la loo xam ne dañ ko yàggoon a denc. voilà question dafa na question boo xam ne kenn ku nekk boo ciy wax dafay am toujours loo xam ne dafay métti sa biir xol. Mhm. parce que la vie humaine elle est sacrée et cela a été consacré par notre conscience à travers l'article 7 moo tax foofu dañu ne état warugal mooy protéger la vie humaine parce que chacun a droit à la vie. Mhm. or ñaar ñooñu muy Fulbert Sambou ak Didier Badji ba léegi. par rapport ñoom service bu ñu rendre a la nation kenn gisul hommage mérité bu ñu leen rendre mm-hmm. mu nekk lu métti on a banalisé et la mort et la disparition de l'autre parce que keneen kii on prétend avoir retrouvé le corps keneen kii il est porté disparu mm-hmm. te motif bu ñu joxee justification bu ñu joxee mooy noyade ce qui paraissait très invraisemblable pour ne pas dire trop léger mm-hmm. léegi am na loo xam ne les philosophes ou bien les psychanalystes moom la ñuy wax le refoulement cest dire que mooy idée boo xam ne boo ko continuer ci biir day ci day da lay rëcc un jour. Mm-hmm. par exemple par exemple booy neloo guddi da ngay rêver tu vois et on dit que le le est un acte manqué c'est-à-dire loo xam ne mi ñoon ci biir te jotoo ko ki moom moo lay mm-hmm. rëccal. Mm-hmm. je crois que waxu Ismaïla Madior Fall dañ ko war a jël très au sérieux et puis on on dit toujours que la première parole moo ëpp valeur. rectificatif bi c'est à la suite de la réaction des gens. Ouais. parce que bu demee ba mu boolee la mort de ces deux hommes dans le cadre de l'amnistie alors que l'amnistie couvrait simplement des activités politiques. Mm-hmm. tey ñi c'est des militaires. ci lu ñu wax sax pêche la ñu demoon rien à voir avec sax pour que amnistie war leen couvrir donc moom du haut de la tribune boo xam ne foofu la nekkoon. il est bien placé pour savoir en réalité ce qui s'est passé ils sont les mieux informés donc moom bu demee ba muy naan amnistie bi dafay jël en compte ñoo xam ne waruñ ci yoon bokk ci bon entendement c'est-à-dire que quelque part ce n'est que après la dem mu ne lapsus la mhm. gaw ma ni lapsus la mais man je dis que aveu la refoulement la te c'est l'occasion rêvée pour que question boobu ñu seetuwaat ko bu baax a baax d'autant que am na conférence de presse boo xam ne am na. xaw ma mhm. est-ce que teew ngeen foofu wala teew leen. on l'a diffusé dans les 19 heures. boo xam ne mhm. classe ñoom Fulbert Sambou ak Didier Badji. Mhm. joxe nañu aussi beneen version te version boobu c'est une piste à explorer avec tout le sérieux. loolu la ñuy xaar ci justice Sénégal tey jii. loolu la ñuy xaar ci justice Sénégal loolu la ñuy xaar ci justice Sénégal te warul yem ci Didier ji ak Fulbert Sambou. mais en réalité on doit faire sauter les verrous de l'amnistie ah. pour que ñu mën a cibler tous les morts depuis 2021 ba 2023. mais bu ñu sautee les verrous de l'amnistie euh, te tey jii am ñoo xam ne ils en ont bénéficié te ñu yor réew mi foofu man je ne comprends pas comment ça va se passer yoon da leen di woo ëllëg ñu wuy ji wala bu seen mandat jeexee la ñu la ñu. de toute façon ñooñu argument bi gars yi di joxe noonu et c'est des gens qui savent qu'ils ont les mains propres. Mm-hmm. xam koo xam ne il est carrément conscient du fait que dafa am un niveau d'implication bu rëy par rapport à des faits avérés mais koo xam ne il est libre avec sa conscience nañu il faut faire sauter les bureaux et que la vérité éclate. mais solo ah, ah. vérité ku ko bëgg a am doo am benn préjugé da ngay considérer ni képp koo xam ne waxam ou bien jugement mun na permettre éclatement vérité nañ ci def. mais su liwaat lu mel noonu est-ce que du euh, indiwaat benn euh, tension wala ña jubóo gi ñu sàkku askan wi si askan wi. moo compromettre ko. jubóo jubóo baax na ci dëgg. je dis que la vie humaine est sacrée mënuñu def perte et profit ci mémoire ay nit. Mhm. fii on parle de mort d'homme. c'est vrai. et pas n'importe dem nañu ba ñu ne ils ont été euh, malmenés et cetera tout dañu leen toroxal ba ñu dee. il y a beaucoup de versions là-dessus amul koo xam ne vraiment ensuite pour des militaires. Mhm. amul benn hommage amul benn communiqué. il y a seen famille amul benn forme d'assistance. mel ni mel ni mel ni c'est un crime prémédité et que c'est ça dafa niroo ay règlement de compte. Mhm. dafa mel ni lu lu niroo règlement de compte. mais mais ñi falu bees aussi est-ce que est-ce que euh, am nañ euh, volonté wala. Euh, bëgg leeral mbir yi parce que li tax ma wax ko mooy euh, nee nañu déglu déglu naa fi keroog euh, kenn benn borom xam-xam bu wax ne boo nekkee opposition souvent di nga sàkku ay leeral ay mbir yu bëree bëri mais une fois aux affaires ba nga am information yi da nga ciy teg sa tànk parce que xëy na mooy gën ci intérêt national li tax ma wax mooy ñi fi nekk nii ba tey wax guñ lu ci lu ci jëm. non ñoo soxla ñu pour wax ñooñu lu ñu wax c'est clair par rapport à la boo xam ne moo daan am xam ne am na ñoo xam ne il se mettre le coude mhm. sur des dossiers ñoom ils ne protègent absolument personne et ils encouragent toujours l'éclatement de la vérité mhm. il faut leur faire confiance ñooñu ñoo gën a am intérêt aujourd'hui pour éclatement vérité je dis encore une fois on parle de mort d'homme quand on parle de mort d'homme da ngay mandu quand tu parles de mort d'homme lever le ton parce que am na ñoo xam ne ba léegi ñu mhm. ñu ngi ci dëj bi xam ne parfois foofu la moom la ñuy wax foofu la ñu dee ça fait mal xam nga la mort mooy loo xam ne ñëpp dañu koy expliqué xam nga pourquoi parce que booy juddoo déjà on te dit que ñaar cycle ni nga mm. juddoo doon ngay disparaître am na condition boo xam ne da ngay dee d' accord dafay métti ñu jooy mu passé mais am nay condition doo mus a mooy comme condition yu mel nii mm-hmm. façon bu ñu dee c' est obscur sombre te un ministre de la justice nga xam ne bu muy wax kenn dóoru ko il n'a pas parlé sous la contrainte il a parlé librement mm-hmm. dem ba moom ci boppam wax loo xam ne tey ubbi na benn piste vingt-quatre heures après mu bëgg a pour ne encore déedéet lapsus la du benn lapsus aveu bi te aveu am na lu mu exprimer mhm. loolu la ñu war a ñëm